alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. gëm nañ ne. tey baay bu suux rek biddiw fépp. loolu moo fi nekk ba fi bàyyi jógee àddina lëndëmoon na wala sax lu jiitu loolu ba fi maam alaaji jógee ba ñuy ba bàyyi di wax ne suñuy gafal seen baay baax nañ ko soril penku bi ndax bis bu ñuy yokk jàkka ci am ku ne ko yow da ngaa dof yow àddina bi tukki bàyyi dem nga naan jàkk yokk jàkka ji jàkk ko fi yokkati hmm? waaye moom ma xalaatoon loola ca boobu julli waaye tabax na jumaa fële ca Madina bokk ci jumaa yi gën a mag fii ci Sénégal pour ñoom wàcc liggéey rek la waaye waxtu wuñ demee rek dana am ku taxaw pour mottali liggéey dafa am suñ benn xarit benn sëriñi murit sëriñ ko sa Mbàkke dañoo mas a taxaw maa moom ñuy wax benn taalibeem ñëw na ko ñëpp pare nañ yow la ñuy xaar mu ne ko bu ma ko waxati kenn parewut ku parewoon rek doo fi bàyyi lu ñuy mottali yonent bi parewut ba léegi ñu ngi mottali sëriñ Bamba parewut yow mi taxaw sa maam parewut waaw ku parewoon rek doo fi bàyyi lu ñuy mottali ku dem rek yaa ngi fi bàyyi lu ñuy li ba léegi ñu ngi ci daa nga li boobu nag waxtu wuñ ñëwee rek ci loolu la ñuy nekk suñ demee itam ñeneen utuñu ci rek loolu mooy liggéey yàlla ma kaana lillahi daama wattasal wa ma kaana li gayrillahi inqataa wan fasal li nga xam ne yàlla rek la du dog mukk waaw dafay deel te dafay jokkaloo loo xam ne duur yàlla nag loolu mu jëmut fenn